bro naka waat Cheikh Seye un jour maa ngi lay wax nga dëgg. waaw jëm waay noonu la de. comme Jimbori def na fi du réew moom benn président lañ fi am muy président Ousmane Sonko c'est lui le président légal le président légitime moom ngeen gis nii ci kaw oto bi Jimbori Sénégal amul ko fi dara defal say bagage nga dem Jimbori jël jël say bagage nga amal Sénégal président Sonko nga ci kaw oto bi léegi nag damaa bëgg ngeen ñëpp ngeen abonné ci chaîne Naby Yakhya Kandji TV Yeah. dañuy tëmbal xeer ñu ngi tëmbal xeer ci koba Ousmane Sonko gaa itu tëmbal xeer ci koba Ousmane Sonko gaa itu tëmbal xeer ci koba Ousmane Sonko gaa itu tëmbal xeer ci koba Ousmane Sonko étudiant APR yàlla de étudiant APR yi ñëw nañ pour saboter mbir mi ña ngay xeer ko dugaan na ci auto ba gaay nak ñay ña gaay ngay riposté ci biir waa APR ya ña ngay sànni xeer way ba gaay yi ya daw nañ ce sont des lâches ce sont des lâches ce sont des lâches ñoo sanni xeer ci combat Ousmane Sonko voilà ñu ngi nii toj nañ vitre bi toj vitre baa ngoog vitre baa ngoog toj nañ ko Papa Ousmane Sonko ngi noonu waaye gars yi nee na kenn doon yàqal seen feet ñu ngi continué di yuuxu naan président Ousmane Sonko ñu ngay continué di yuuxu président Ousmane Sonko. président Ousmane Sonko gars yi ñu ngi koy continué di acclamé fii. ay saay-saay yu nekkoon ci biir ñoo doon xeer ci ci ci Karna. É isso! président Sonko duggaan na ci oto baa ngay Ousmane Sonko dugg na ci otoom yaay waxal xaaral gën nañ ñu ngi ànd ak oto ba de nee duñ ko bàyyi mu demee noonu gaa yi ngi cross xam naa ne ñàkkul gaa jëm kay gunge ba mu yegg cross Thank you. Anak pros, pros juga lagi na orang biir otoom oto baa ngi noonu ngeen bu weex bi mom ngi ñu ngi ànd ak moom mais duñ ko bàyyi noonu mu ñibbi dañ koy gunge Wow mu yegg combat baa ngi noonu combat ngi noonu ngeen di seen ci biir oto gis avance mais dañ ngi topp anak pros Pros bangin non di dalam. daw topp convoi bi Brosse mi ngi ci mbedu Ndakaaru yi di dem mi ngi ci point E bi ay ne dañ koy gunge ba mu yegg non non diisul diisul baax na diisul diisul diisul diisul ma ne diisul baax na président ngi noonu gars yi encerclé ko kìa ai về à Messi ra Hả? À nhóm khá đi hả? Đi đây đây. No, non magari con il cuore vede. No, no, no. Dai, écoutez, tu sais. Arrive. Arrive. Ah, oui, il y a Aliou Aliou Aliou Aliou lãnh đạo rồi Dani! <laughs>